Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité la cloche de notification. voilà mbokk yi ñu ngi leen di siyaar ñu ngi toog ak euh, Malick Thiandoum mm, ñu seet si ko tey euh, gannaaw bi nga xamante ne Vox Arena dugg si na si làmb ji indi ay affiches yu am am solo d'abord ñu nuyu la bàyyi la nga nuyu ak mbokk téléspectateurs yi. waaw maa ngi lay euh, nuyu di nuyu suñu mbokku internautes yi ak suñu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp euh, di kontaan lool ci euh, dalal bi ñu leen dalal déjà parce que tey rek ak ki nga xam ne mooy monsieur Diouf waxtaan nañu léegi doon xool nu ñuy def ba mën a liggéey ci li nga xam ne moom la Vox Arena di taxawal déjà am nañ ci ay écho gis nañu ne structure la bu nga xam ne ay ndaw ñoo ci nekk bëgg apporter seen pierre à l'édifice ci li nga xam ne moom la ñu moom te jëgaane wuñu ko muy làmb euh, ñu leen di dalal jàmm di leen souhaiter bonne chance déjà. merci beaucoup euh, nga jékki-jékki gis ni ñëw nañu euh, décroché benn combat bu mel ni Franc ak Tyson deux ñu ni détoy ñu toog tuuti daal di indi Mama Lamine. ak euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, voilà Garga 2 nan nga gisee affiche yooyu. waaw déjà euh, bi ma déggee ñu monter affiche yi dama ni mais ñii am nañu ku leen di déey am nañu ku leen di orienté walla boog ñoom ñu xam làmb parce que xam làmb mooy taxawal affiche yu nga xam ne amateurs yi dañ ko bëgg. te ñaari affiche yi ngeen taxawal yëpp bu may wax damay wax ne euh, c'est dicté par la marche de l'arène mais également ay affiche la ñu nga xam ne amateurs yi dañ ko plébiscité déjà parce que euh, le retour de Garga 2 euh, ñu bëri dañ ko doon xaar ndax ku nekk xam na ni bi mu fi jóge di dem bitim réew am na ci lu mu jóge woon mais nekk xale bu nga xam ne parcelle dañu am ci moom yaakaar waa parcelle bëgg mu dellusiwaat rebondir donc dafa mel ni moom da doon def lu ñuy tudde reculer pour mieux sauter euh, mu nekk xale bu nga xam ne wax dëgg yàlla xereñ na mën na bëre parcelle am na ci moom yaakaar mais ki muy taseel Mama Lamine tey boo demee euh, zone u Lansar boobu noonu zone zone u Thiaroye et cetera xale na bu nga xam ne su jógee euh, ñëpp ay jóg jàmm gën Sicap Mbao voilà Yoff qu'est-ce que je veux dire zone boobu yëpp ah bi ñëpp ay jóg xale la bu am assise populaire mais xale la bu nga xam ne aussi dafa xereñ ci wàllu bëre wex xat alors euh, Garga 2 jël euh, Mama Lamine ci retouram mën na nekk risque parce que Mama Lamine il est compétitif xale bu taxaw la xale bu mën a bëre la mais Garga 2 kenn dàq ko bëre xëy na am na njuumte bu mu juumoon bëgg ko corriger loolu mooy enjeu combat bi mu nekk komba bu nga xam ne combat bu nar a neex la woon la lay doon parce que Garga pour la réhabilitation et pour la relance Mama Lamine pour la confirmation dara du ko dàq. dara du ko dàq effectivement yaa ko wax léegi ki nga xamante ne moom mooy Mama ñu gis ni saa yu ñëwee ci làmb ji sañ-sañ lay indi amit day du may adversaire fu mu yeexee na xam ki nga xamante ne tamit moom mooy Garga noonu lay bëree. seen daje noo ko gisee. non étincelle mooy tàkk foofu parce que ñaari attaquant lañu kenn du ci dellu ginnaaw euh, te ñaari mbër yu am fit lañu comme li nga wax noonu Mama Lamine pour moom lu taxaw ci kanamam daf ko war a ñëw jël yóbbu garga même juum yu mu juum bu mu juum loolu moo ko ko indil parce que sañ-sañ lay bëree ak fit. ak ku mu taseel yaakaar na nit ci ay moroomam moo la mën moo tax ñaari attaquant bu ñu dajee faw faw faw faw mu metti xeex bi day metti mais lépp ci bëre lay jeexee buñ ca yàlla yóbboo ak jàmm parce que ñaari bërekat lañu ñaari guerrier lañu donc c'est des euh, espoirs aux dents acérées de lu aux dents acérées donc forcément combat bu méttee métti lay doon. combat boobu est am na favori. tey booy jox favori peut-être Mama Lamine ngay jox légèrement favori. ndax euh, Garga li mu gëj a bëre toog trois ans dem à l'extérieur loolu mun na nekk un léger handicap mais bu dellusee ci réew mi liggéey ak li mu liggéeyoon ak potentiel bi ñu xam ci moom ça peut être un atout mais Mama Lamine pour man moom moo am avantage bu léger ndax li mu moom moo mujjee bëre euh, xale la bu nga xam ne tout le temps mi ngi compétir donc ay repères moom moo koy xaw a ëpp garga ci combat bi mais garga bu dellusee ak engouement bi muy indaale loolu mën na nekk aussi un atout majeur. Euh, ki nga xamante ne moom mooy Franc Tyson 2 Tyson 2 jógee barki Dembo Ndiaye ci victoire bu am am solo mu sonal trop waa parcelle bu ñu waxee une deux trois waa parcelle saa yu ñu ko jëlee mu daan leen yaakaar naa mu dugg fa trois fois ki nga xamante ne moom mooy Franc nekk ci làmb ji surtout lutte euh, lutte simple bi mu daal di ci def ay résultats yu ama am solo mais aussi avec Franc mësagul daanu combat boobu ñu taxawal ko noo gisee. Euh, Equivox Arena boobu moom ils ont frappé <laughs> ils ont frappé un grand coup euh, parce que boobu moom wax dëgg yàlla xaw ma fu ngeen tàndoo affiche boobu mais affiche bu affiche bu extraordinaire mooy mooy mooy affiche boobu parce que euh, Tyson 2 c'est c'est vraiment la furie xale la bu nga xam ne macha allah dafa mbapat d'abord parce bu ñu fàtte ni Tyson 2 dafa mbapat soog a dugg ci arène bi. ba pare am ay atu yu nga xam ne ci wàllu xeex macha allah euh, di doomu ndaayaan di xale lébu bu nga xam ne amul lu muy ragal lu fit boo koy wër ba yem ci Tyson 2 bu yeboo nga wàññeeku xale bu am fit la xale bu am sañsañ sañ la xale bu mën bëre la te ni nga ko waxee aussi dafa lakkal euh, waa parcelle dafa jël rek moom chaisam teg ko diggu parcelle ku ñëw mu defal la bagage mais Franc est devenu la terreur des arènes parce que nag bu ñu fàtte ni franc euh, ci wàllu euh, li ñu tuddee lutte traditionnelle déjà daf ci def ay preuve am ce qui n'est pas évident ñëw ci monde lutte traditionnelle bu nga xam ne c'est c'est la chasse gardée pratiquement des séeréer ak yu mel noonu moom mu nekk njaago ñëw dugg ci ba tey jii bokk ci les meilleurs ñëw bay tutoyer rëg-rëg mi nga xam ne moom moo nekkoon au sommet donc ci wàllu bëre amul looy jàngal franc mais ci wàllu doole aussi macha allah bi mu demee bitim réew dellu siwaat dañu gis beneen franc mu tegale tournoi yëpp jël ko ci bëre door aussi mu dugg ci macha allah wane ci lu nga xamante ni ni euh, ku ko gis xam ni mën na xeex mën na bëre ba pare nekk ci keppaaru ku mel ni Modou di liggéey ak moom donc xale la bu nga xam ni parcelle dañu am ci moom yaakaar euh, mu nekk ku mën bëre am doole donc digganteem ak ak ak ak euh, Tyson deux non combat du ko dàq maintenant sur le plan de la bagarre Tyson 2 gëm nañu ni am na un plus par rapport à à à mais Franc bu sa loxo jógee mën na la defal bagage parce que xajul ci kenn ku mu tàmpa nga xam ne ni mu toll doole ji ëpp na ko donc combat boobu da ngeen ko tàndu moom. <laughs> mais combat boobu tamit est-ce am na favori. non boobu nag moom mënoo si sax joxe favori parce que vraiment c'est le combat le plus incertain man bu doon ci sama gis-gis ñoom ñaar ku nekk mën nga daan sa morom ah, ku nekk mën nga daan sa morom parce que ku ne am nga ay atu yu nga xam ne boo ko utiliser daan sa morom Franc ci doole macha allah ci euh, euh, mën a bëreem ak ci compétitivité parce que Franc loolu mooy force dafa am compétition dafa wow koŋ macha allah. mais Tyson 2 ci wàllu xeex ak disposition yi mu am bu fekkee ni utiliser na ko te sàmm ay tànkam mën na am dara moo tax combat bu nga xamante ni euh, du yomb ci ñoom ñaar ñëpp te Tyson 2 technicien la euh, ku nekk gis na ko li nga xamante ni def na ko ci tournoi bi fi gars yi organisé woon euh, c'est un lutteur extraordinaire tey fi mu toll nii sax pour man war na ko dépasser moo tax combat bu nga xam ne non ci luy baax lay doon du am du am bu sedd Euh, ñu lay remercier di lay remercier bu baax a baax ci di disponibilité bi di la wax ni lan ngay tàggatoo. waaw li ñuy tàggatoo rek mooy euh, déjà structure bu bu bees bi nga xam ne taxawal ngeen ko dañ leen di ñaanal succès ndaxte ay ndaw ngeen te bi ma waxtaanee ak ñi nga xam ni ñoom ñoo ŋànk structure bi euh, gis naa ni am nañu gis-gis bu bees am nañu. am nañu envie innover indi lu bees ci ci ci làmb te làmb foofu la toll actuellement nii il faut euh, ñu am ay initiative yu novatrice il faut ñu am une démarche nouvelle il faut ñu am leneen lu nga xam ne dañ ko ci yokkaat pour mën a booster la lutte sénégalaise parce que làmb du spectacle bi rek du ñëw rek ñaari mbër yi bëree ku nekk dem au-delà de ça mën nañ ci ñambaas yeneen mbir yu nga xam ne dina tax ba spectacle bi gën a attrayant ba ñu gën ko mun a labelliser gën ko mun a internationaliser jaay ko feneen et je pense que dynamique boobu ci la euh, Vox Arena nekk te dañ leen ci ñaanal euh, plein succès et puis xam nañ ni fi ngeen teg seen tànk daal incha allah foofu la te gëm naa ni li ma waxtaanee ak euh, boss bi am na yeneen yu ngeen di togg te bu bés bu ngeen ko yàkkee gars yi dinañ ñi mais ñi fu ñu jógee <laughs> jërëjëf. Si vous aimez cette vidéo n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.